asalaamaaleykum ami internet yu Wanema TV alors ñu amaat mbégte nag ñëw jàkkaarloo ak yéen bii di euh, jàkkaarloo spécial parce que dama am une noirceur déwén koo xamante ne wax dëgg yàlla ñu laay bu rafet bi euh, su reetaanee ngeen kontaan mu Sénégal aussi nit ñi daal di koy bëgg elle se nomme tout simplement la belle Joséphine de la série Infidèles Joséphine noo def. maa ngi fi Malick man daal nga nekk di jëy nii. Ah, Barnodal, En tout cas, c'est un plaisir d'être là avec un présentateur hors pair, Gendalma. Franchement, je suis ravie d'être là. Voilà. Alors, merci beaucoup. Gis ngeen ko moom tamit nuyoom ni mu alors ñun tamit saa su nous rek dañuy am eh, mbégte di jàkkaarloog ñu mel ni alors eh, tey fi nga xamante que foofu la ñuy eh, nous nañu xam kan mooy Joséphine. waaw bon c'est très simple hein. Joséphine moi, Joséphine Duvaux. Hein? une béninoise qui s'est perdue un peu à Dakar <laughs> non fii laa juddoo fii laa yaroo sama papa du béninois sama yaay euh, moo de Casamance voilà quoi Joséphine Djivo de la série Infidèles. Eh, d'accord... Moi mu mel ni bobo, moi mooy tamit ce tour vrai. exactement Je l'ai gardé Hein? Ah. beaucoup nga bëgguma woon changer personnalité Moi tax ma ne avec rek man ma denc personnalité normale bi même si Joséphine de la série Infidèles est différente de Joséphine dans la vraie vie quoi. Quand elle da nga naturelle... rek naturel. <laughs> dama naturelle... naturel même si dem ma timide loo su may jéemee wax ça dama naan non non yow da nga ñàkk fayda war wax yow da nga timide. <laughs> yow da nga timide yow. man je suis baax parce que kanam tuuti alors euh, tey euh, Joséphine euh, sa enfance fan nga passé. bon man nak boy Medina Boy booy Medina même si balcon bi rek la doon seen nit ñi daawuñu woon génn xam nga moo sama olof sax leeruloon torop si saison 1 bi tout le monde a remarqué ça. Mm-hmm. après nak c'est là commencé di rey son bop si olof bi xam di jang taxi par cœur avec vraiment un olof pointu. mais Medina de dëkkoon Fala Yaro, ba à un certain moment je pense euh, je pense 2004 ou 2005 la dëkk mamelle après par la suite puis après ma ma dellu si banlieue bi xam nga dëkk Kër Massar. Mhm. voilà yow dal tout nga fi tuut fee. tuut fee élection électron voyageur <laughs> D'accord, voilà alors ok euh, buñu taxawé fi nga xamanté mom moy ce cursus scolaire bon non mhm. euh, bëgg nañ nga détaillé ñu tay euh, lu ci melni ndax Joséphine jaar na jardin <laughs> ak Joséphine yan école nga jaar ak fi nga xamanté ne foofu nga amé sa bac. man nak c'est que nak parfois dama koy bëgg di wax trop parce que xam nga dama may tek ben intellectuel quoi intellectuel mais j'ai un bac plus 4 de BM BM Sacré-Cœur marketing euh, stratégie commerciale la à BM mhm. et bon disons que euh, je me suis comme comme moi koy dit, euh, en effet léegi man sama jardin je l'ai fait à 5 h de Marie euh, Médina la nekk Médina ou Fash, je me rappelle plus de dafa puis j'ai fait mère Jean Ludien de CI à CM2 après ça nak suis en entrée en sixième RCFE euh, c'est laa dem Notre-Dame des institutions Notre-Dame euh, malheureusement nag cinquième la arrêté fof dem Saint-Michel c'est que nak man nak defna la karu njaay bi après ça, demain, à AMJ, Saint-Pierre, big up à toutes ces écoles. Hein, puis, ma euh, Nelson Mandela. Parce que comme nous l'avons dit, chanteuse là, Bougondon. Mais euh, j'ai fait euh, le bac S, Defnar, au moins une fois. Nelson Mandela l'a refait. Faut le bac aussi. Non, non. Euh, le bac une fois oma euh, a directeur bi à son âme euh, Abou Touré moo ne sama qui elle parce qu'elle est bonne en maths mais yeneen matière de vous si donc euh, Saint-Michel nous euh, doon dispensé benn euh, formation post-bac foofu non donc euh, le le but c'était de faire deux ans. Mhm. d'accord boo amul bac au moins di nga génne ak diplôme. Mhm. donc moi la première année dama dem de formation bi en même temps ma def candidat libre en bac L am voilà, donc du coup, j'ai arrêté la gestion des entreprises, euh, de marketing, UKOLA de devait marketing. deuxième année, marketing euh, stratégie commerciale, pour moi, j'ai diplôme technique de l'école. Euh, c'est quoi encore déjà Non, c'est pas DTS, voilà. DTS, mhm. diplôme technicien supérieur en mhm. marketing. Après ça, nak la et j'ai continué tout mon cursus euh, académique à BM, voilà. Ah, d'accord, bonjour genre élève nga won bi élève bo xamné day wax rek. <laughs> Di classe c'est que nak sama wa classe ndeysaan sama wa marketing 2A dama len bëggoon sama xol c'est que nous on avait une classe tellement euh, énergétique professeur d'un cœur. suñu classe c'était très très très énergétique parce que classe bi dès le matin dañuy def ay mouvement xam nga bokkum <laughs> Jibril bokum sama agent bi mom il s'est autoproclamé agent de moi c'est il y a six ans mais on garde de réel contact groupe ils ont ouvert ça Nissan. je fais tout un tout un big up big up à marketing euh, de A tellement que c'est une famille quoi tu vois comme Evan Prod mm-hmm. Evan Prod et les acteurs c'est une famille. c'est une famille donc euh, eux aussi c'était une famille man nag dama à une famille macha allah daal. d'accord ban toj-toj nga mas a def sa école lu marqué. man mi man daaw moon def toj-toj loolu de pourtant. d'accord euh, tey sànq ñi ngi wax ci euh, série bi alors bi ngay dugg série bi sa famille. Mhm. naka ko accueillir loolu. alors là très mal man bu may dem defi casting sa samay waa kay yëguñu ko. Hmm? may dem defi casting samay waa kay yëguñu ko te au début sax dama ne ah damay dem defi casting ñëwaat toog.

si la dame toog ak sama yaay ne ko ah jëndee ma ko benn série moom xamoon ne que ma ngi def active même pour mon développement personnel là dans def mu ne ma série ah Badou série <laughs> ma ne ko non non façon dinaa dinaa si jouer benn rôle boo xam franchement du inquiéter famille bi et franchement à la fin ils ont tous compris ils ont su que rôle rôle quoi et toute la famille a apprécié. après macha euh, première fois ñu gis la nga nga jouer lan moo nekkoon une réaction. première fois ah mais c'est toujours bizarre hein. ñoom dañ voir ça sax man mi sax man mënuma toog écran c'est dans son bopp ba fin non ça ça semble toujours bizarre ñoom bu ñu koy seetaan loolu la may ñu ko wax sama papa tam pareil il dit que c'est très bizarre de te voir à la télé et jouer On dira plus rappi di jaay timide te fekk. Non.. <laughs> Non.. nga le convaincre. franchement ak ful quoi tu vois beau booy une télé il faut nga am benn fulla luñ lay waxal yeb ñu benn ci fek tant que ñun li si tant que fek ñu la si say famille sa famille gis nek am nga yar am nga teggin changer vos personnalité changer vos changer vos comportement franchement dañuy dañ lay dañ lay gëm am confiance sur vous c'est l'essentiel quoi d'accord euh, accidentellement, la tombée sur ou actrice, oui. Mhm. Mais je travaille, je suis commerciale à l'agence de presse sénégalaise, commerciale et aussi marketeuse, mm -hmm. voilà. baax na Joséphine ndawul <laughs> alors euh, tey euh, xam nga ni ndaw dafa nekk loo xamante ne nii dafa bari ay bëgg-bëgg. Euh, bi ngay nek xale lan moo gënoon nekk sa rêve ah man de man nag <laughs> dama don setan Viviane di kontaan ci mom na non man nak Viviane lay la laa bëgg mu don sama référence suma màggee kat lay do di jema jang nak nag bu si nekk di jema a et tout ça bon après <laughs> malheureusement son baat neexul mu juma doon kat mais bon euh, je suis une vraie mélomane man façon way bu ne lay dégg façon way bu ne dama koy dégg kon daal waykat moo nekkoon sa rêve. ngay di xale exactement. Euh, tey euh, ñu gis la si li nga xamante ne nii moom mooy euh, méccu métier maanaam cinéma nga daal di siy dugg. tey dugg bi nga dugg si biir milieu cinéma boobu noonu naka la la dikkee. c'est accidentel hein c'est accidentel dama dugg de façon très accidentelle franchement et de façon naturelle amour piston amour dara franchement euh, dama toog benn période boo xam ne liggéeyuma defuma dara te xam nga chômage fii dafa metti da ngay déprimé Ça m'a ben, xarit Momo je te fais un big up Momo euh, Momo, ma ne yow am nga profil acting xam nga yow fu la fekk yaa ngi cinéma y'a ngi tourne, etc. Tout du ñëw nga def cinéma au début je disais non mon nek xama man je sax tok si kanamu je ne tok si kanamu pas, wax ma dama lay ben sama de cœur Ben Sadio Sultan je te fais un gros bisou sais euh, pas, ma mu jangal ma acting xam nga ma yoon bi quoi ne carrément ni ngay pour actrice tu vois pas dire théâtre de nga defuma spectacle parce que je me disais que théâtre dafa métier <laughs> pour moi. donc euh, je salue au passage aussi tonton Pape j'ai fait quelques ateliers de doctorat à Doutasek pendant une certaine euh, long moment ça euh, novembre 2019 là commencé de faire acting en juin, j'ai entendu qu'Evan Prada a fait un casting. Juin, juin, je sais pas, entre juin et, euh, juin et juillet, je me rappelle plus vraiment. Mhm. Juin 2020. Je me suis dit Evan fait un casting, mais casting ciblé. Alors, je suis allée, je m'a envoyé déjà mes photos mhm. à Paté, un grand caméraman, un grand acteur. Donc, vous m'envoyez envoyé photo, photos, je me suis rendez-vous, madame Fofou fait mon casting tranquillement avec Tafa et Jean Dossé et ils m'ont pris naturellement hein. Je en fait dama def sama casting tranquillement Je suis ma tout le temps le Je suis bu dem casting casting daal dem casting chance franchement suis euh, ne lay dugg

même bu pour pour devenir actrice léegi dañuy xool benn certain niveau d'études. parce que dañuy jàpp nekk doo mën a lire texte bi wala dañ leen di sonnal wala lii ak lee ak lee. problème signature contrat exactement problème boobu noonu donc euh, jàng leen.

waaw daf ma ubbil ay buntu yu bëri surtout xam nga métier commercial bu may def même si aussi je suis marketeuse daf ma ubbil ay buntu yu bëri bëri bëri surtout si liggéey bi. alors tey wax nga ko sànq ni que ni daf la ubbil ay buntu tey muy jeunesse bi nga xamante ne nii tey ñu si bëri dañ bëgg a dugg si biir série yi. et ñi ngi wax sax naam jël bi aussi dafa am ay mbir yu nekk si biir. yow da nga d' accord si wax jooju wala. d' accord ma si mais nag ah. da ngay xool euh, en société rek parce que man exemple boobu rek laa mën a joxe xam nga milieu entreprise milieu société euh, bu ñu waxee ne dañuy séddale ay emploi embauchement yo jibi bu la ne la am dañ lay sédd benn emploi dañuy enfin yaa ngi wane ma aujourd'hui on a besoin de journalistes te dañ leen di embaucher direct kan ngay njëkk xalaat c'est une question, même si <laughs> on a une place pour échanger. Mais c'est une question que je te pose en fait. Pourquoi Parce que même en tant que Joséphine, si toutefois on me dit qu'on a besoin de ceci ou de cela, ça me que la nek khalat. Le feeling que fait, que feeling que Tu vois Bala me khalat, nenen Les castings, ça marche, tu vois Ça marche. Mais souvent aussi, il y a une préférence entre qui est ak mhm. koo inconnu la. inconnu la c'est vrai voilà mhm. ok tey milieu bi ndax am nga si ñoo xamante ne nii sa ay référence la ñu. wala mhm. say idole la ñu. ah waaw la grande Amélie Mbaye. Amélie waaw la grande Amélie Mbaye qui a fait l'international mooy sama référence su ma sañoon franchement am parcours bu am moom et Joséphine Zambo aussi hein? parce que bien bien sûr elle porte le nom de Joséphine. Joséphine. <laughs> mais aussi mën na bu baax lu muy def képp avant théâtre avant da ngay éloquence bu mu présence bu muy incarné. Mhm. allah d' accord lan a marqué Amélie. Amélie dafa dafa am feeling. Mhm. Amélie Mbaye dafa am feeling dafa mën wax. Mhm. boo xoolee même souvent vidéo yu juste euh, pour pour passer elle a gagné d'ailleurs aux aux awards euh, qu'on a organisé récemment. Euh, félicitations. Vous hein? Elle parle juste avec éloquence, en fait tu vois l'éloquence le le pragmatisme le caractère donc nga sentir se voix mais quoi machallah, rôle boo que jox da incarner bu mu mat sëkk macha allah euh, milieu bi nga nekk muy doy au Sénégal parce que bu ñu xoolee euh, mu mel ni euh, côté négatif le Sénégalais di gëna gëstu. waaw milieu cinéma. tay critique yi bari na wax ji bari na loolu yow lan mo siy sa mot on ah, ne on peut pas tout satisfaire tout le monde Comme nous, nous, même avis comme nous, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mhm. tu vois mais lenn rek là, si wax meilleur acting bi. Mhm. def choix la mhm. tu vois choix tu peux choisir de d'incarner un certain rôle. comme tu peux choisir d'incarner un autre rôle. mais il faut se dire dans la tête que Sénégal c'est moi am limite ce cinéma mais est-ce a amuñu benn limite le cinéma mhm. tu vois euh, c'est ce que je veux dire il y a y a Mathieu Diop qui a fait un grand film euh, actrice bu mu incarné mu rôle principal c'est ci mbedd bi la ko incarné tu vois film bi boo un parfois il ngay a ay ween ay fóonante et tout ça Il y a des ne dañuy dem film bi ko YouTube ou dans un autre canal de dans un autre support de mhm. communication et pourtant ça ne choque pas autant que ça mhm comprendre donc Sénégal c'est moo am ben certain a priori limite par rapport euh, je comprends hein, cette limite par rapport à la culture aux mœurs mhm. le lu baax le ben côté mais dañoo war a xalaat avancer quoi. d'accord accord euh, théâtre Sénégal euh, naka nga ko gisee euh, rawatina série bi nga xamante ne nii si la la ràññee infidèle parce que wax ji bëri na. Mhm. am infidèle de gauche à droite li leen di joxoñ baaraam dafa bëri tey loolu yow naka nga ko gisee j'angat ban j'angat nga si def. Euh, lenn rek naa mën a wax mooy Evenprod cinéma lay def mhm. Prod xamul demi mesure dañuy liggéey quoi tu vois. Mhm. ben nako ba bo ñëwee ci plateau de tournage rek si nga xam que liggéey baa fi le professionnalisme est là. Mhm. tu vois un peu foofu rek laa nous on fait du cinéma. képp ku bëgg xam lan mooy cinéma rek na dem Google bo laajee tonton Google lan mooy cinéma dina la bindal qu'est-ce qui est le cinéma c'est-à-dire comme nous le il n'y a pas de demi-mesure. on fait le taf. d'accord mais as def cinéma ak réalité Sénégal parce que d'habitude. Mhm. on voit des scènes yoo euh, des et euh, bon réalité sénégalaise est-ce que deug deug deug ni gis ci série euh, réalité Sénégal. Ah, réalité de <laughs> li fi am mom hmm. tonton Ibou réalité Sénégal maintenant bon il faut bien vanter l'état, boo les parfois euh, si série De nous montrer boo vu dans d'ensemble but, tu vois de beaux images franchement du Sénégal L'autre belle image yu ñuy yu ñuy yu c'est véhiculer ci ci ci série bi lu ci par exemple rôlam bi rôlam bi day jàngat boo dégluwee jaara lu muy wax rek tu tu apprends beaucoup de choses man sama rôle saison 1 mais tout le temps dama doon en bas, euh, elle était dans la mauvaise elle est dans le mauvais chemin mais tout le temps dama mon avec d'arrache-pied bien que man nag nous mu doon ñàkk si c'est série mais tout le temps dama ko donne indi tu vois indi xelam ne ko bàyyi li ngay def li ngay def baaxul et cetera et cetera mais aujourd'hui amitié fini, Sénégal Lolo fi am fii amul amul benn xarit boo parfois nak, amna ay ay ay relations yu rare yoo xam ils sont très solides mais xaritoo fi Sénégal dafa metti, fi et partout ailleurs sax laay wax dafa metti. donc euh, il faut pas toujours regarder le négatif xool leen positif bu mu indi amna ñoo xam ne parfois sax loolu ñuy wax man infidèle jàngal na mu lu bëri am na ay père de famille des maris yoo xam ne nanguñu seen jabar dem salle de sport léegi. ndax séeréer bi ndax séeréer bi léegi dañ si jàng en fait dañ si yeewu. parce que au début que personne n'ose. franchement def benn séeréer boo xam ne salle de sport femmes mariées dañuy dem et ils sont ils font cocu à leur euh, mari. cocu ça veut dire dañuy tromper seen seen jëkkër. d' accord mu mel ni tey comme li nga bëgg a Sénégal Sénégal dañuy xam dañuy xam teg ci seen tànk ah, wax li nga xamante ni euh, manam infidèle euh, bien vrai que fa sax da ngay man damay tok romb ci mbedd dégg euh, buñu ñu tuddee série infidèle ñu ne wax ñooñ da baaxuñu. ñoo koy <laughs> mais tay yow yow lan nga sabab yow nga japp ni. mo waral ñu leen di joxoñ parce que wax ji dafa bari ci infidèle du benn du ñaar. Mm, non lu ñuy def kenn defu ko fi nous on fait une série de moins de 16 ans c'est-à-dire yow en tant que femme mature toi en tant que homme mature mun ko sétal mais ben xale bo xamné 14 ans la am waru ko sétat mais commentaire yi dañ naa wax da ngeen vulgaire loolu lañuy wax ñu ne yéen da ngeen vulgaire. ah mais attends dañuy jaayu loolu la loolu moo am ci dëkk bi. <laughs> voilà gis nga moo ne du ma parce que jaay bi mi ngi non parce que sama ben grand dafa ma laajal mu ne ma euh, si biir jaay bobu non boy xol xalé jigéen yi ñëpp seen rêve moy lan yor ay iPhone ñu leen di tudd euh, tay mo tax ku si dégg série rek wala ñu proposer la yéen chaîne yi dang koy def yow si genre xalé jigéen yoy nga wala non il faut dire que déjà les femmes qui jouent dans les séries elles sont très matures bo xolé la ñu waxé rek da nga xamné que maturité baa fi c'est-à-dire que ñom casé wu ne dans la vraie vie que ce soit professionnel que ce soit santé mentale et cetera tu vois donc bu ñu yoree tey benn iPhone ñoo ko liggéey seen bopp affaire man loolu laa foog tu vois ñoo ko liggéey seen kon amuñu pour pour bu idéologique idéologique idéologie xawma lan nañ koy waxee encore je parle même mot idolâtré voilà bu ñu idolâtré kenn tu vois nit daal da nga war a gëm sa bopp boo gëmee sa bopp rek boo newee point B laa bëgg a dem dama fay

Moi, j'aime bien ce rôle-là, en fait. j'aimerais J'aime bien cette transition-là, tu vois. Parce que mon on continue à être toujours douce, tu vois, toujours gentil ah, Finalement, la main sauf Nini. Fallait, fallait tonton Ibougué changer un peu de contexte, de registre. C'est ce qu'on dit. Changer de registre au moins. Moi, je te hein. Voilà. deug la. <laughs> bi dal mhm. do

bon déjà changement c'est disponible que sur Wido. Je ndax télé diffusé ou pas. Mhm. en tout cas je sais pas trop. mais pour l'instant même commentaire négatifs négatif parfois pas trop ah nappe, dalaa napp wala Anta de la nappe. bon écoutez c'est un rôle ah c'est normal <laughs> c'est normal Mon nappe, ma man texte bob non li ma bindal comportement boobu non, laa war am mhm. donc dama koy am léegi après demain bu moi, je vais li nga li li nga joué baaxul wala li nga rôle baaxul wala mhm. j'écoute avec une oreille damay nangu en fait mhm. ne moi, ça sa D'accord.

elle a décidé de faire ce rôle-là, elle a décidé de faire cette séquence-là et cette scène-là. Mais

Comme je dis, euh, c'est un public mature qui regarde ça. Le temps de fuis, c'est que nous avons fait, c'est ans, nous avons fuité. Nous screen. Voilà, donc screen en fait. Est-ce que dans la télé Il faut veiller, séquence, c'est-à-dire, il faut la télé, c'est ngeen xool séquence bi dinañ ko dina donc il faut arrêter de diaboliser en fait certaines choses. dans le cas de Léna garaawuloo non man garaawul ma en toute sincérité c'est une séquence en fait c'est une actrice elle a joué man oh, je la félicite parce qu'elle a eu le cran de jouer ça macha allah. ah bon waaw macha allah pour non mais attends man ak moom du benn tu vois man ak mom du ben man sama profil laajul ma jouer séquence yooyu non mhm. sama profil moo mel non man xam nga sama kanam dafa angélique d'accord parce que dafa innocente euh, dafa innocente fi may ñew moy Olof Ndiaye def né ku sa cadre rek yëpp la mooy ça veut dire que est-ce que tamit des fois comportement yi nga xamantene ni mom ngeen di dikkee ci maison de production yi lolou du tax ñom producteur bi am sañ-sañu euh, di le proposer yenn rôle yi pour nga jouer ko. yan comportement exactement. tay bo bëggee ñew nek jigen bo xamantene da nga bëgg aduna wala nga bëgg fës trop parce que déjà léna li mu joué ko jouer ko fës ndax li naan ku dé ci marché ya tag sa bop lolou la def. lolou dama ko ciy waxaat di ko c'est un rôle gis nga rôle rôle nous nga dans la vraie vie. Mhm. personnalité à personnage c'est totalement différent. Mhm. tu vois moi dans dans la série je suis très timide. Mhm. très gentille. mais dans la vraie vie j'ai beaucoup de caractère comprends dans la vraie vie mes waxtaan des faux des des des Je j'ai pas cette timidité là si si tu vois un peu. donc euh, il faut dissocier les deux nekul ne da ko def rek que dafa bon. bien au contraire. ok il y a aussi le cas de Aïcha Thiam. Mhm. moom mu refusé maanaam joué lu ni mel ba tax ñu dàq ko lolé yow amoo si moom loo si mën wax ban jàngat bo si mën def. non lolou man yëguma si dara tu vois comme je dis sama yoon newu ci entre moom la ak mhm. maison de production c'est-à-dire Evan Evenprod et Aïcha Thiam man sama yoon newu ci mënuma si sax xuus parce que xawma xawma xaw li xew xaw ma. d' accord séquence mo la gëna marqué ci bir infidèle. moy bu may jooy bu fekk Anta mu dee ne sama copina ah, dina dinaa bu may ñëw fekk ko mu dé ça franchement ça m'a énormément marqué man su ma koy seetaan sax euh, sama sama xol day fees quoi. cette séquence est la dernière séquence que j'ai joué ces si saison 2 bon comme temps bi nga xamanté mom moom la ñu mayoon euh, jeex na ma profito dugg si benn affaire pour

dañ nekk di joxoñ baaraam ndaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy dugg dugg ci seen i seen ay comportement ak seen ay jëfin tey suñu yaay yooyu noonu nga xamante ne ay référence la ñu noonu yow euh, seen ay réaction ci série yow naka nga koy analyser. non du benn analyse xam nga mag yi nag ñoo lu mën a jàngal. Mhm. loo xam ne yow xamuloo ko. Mhm. tu vois donc ñoom bu ñu demee ba bay bay wax. c'est parce que peut-être dañoo remarqué loo xam ne euh, bu doon ñoom duñ ko def wala seen jamono loolu amu fa woon donc c'est c'est à écouter man je prends acte j'écoute j'analyse tu vois et le moment war a def dama koy def. mos nga am sens qui ak kenn non malheureusement à part Joséphine Zambo au passage manqué manqué nu parce que dama am benn xarit yaayam la donc moom rek la la jot a mais sinon tout le reste malheureusement jotuma gisante ñoom benn yoon parce que man tam sama génn bëriwul xam nga donc euh, voilà quoi.

ces moments difficile waaw merci beaucoup pour la question man loolu dinaa sawar a sawar wax parce que l'heure est grave man loolu rek wax l'heure est très grave dem leen vacciner. wu ci képp ku si feebar na nga dem signaler sa bop. même bu dee hôpitaux yi amuñu place c'est vrai mais demal nga signaler sa bop. au moins ñu xam euh, au moins yow dans ta tête tu te diras que feebar nga tu vois on te donnera les médicaments qu'il faut nga traité au boo pareil, nga dem vacciné wu allez-y vous vacciner amul dara lu leen dara ci vaccin yi. vacciné wu nga yow. waaw D'accord, man tamit vacciné wu naa parce que tamit lu si bëri ñi ngi wax naan vaccin yi dafay vaccin yi pour euh, juste pour taxaw fofu euh, deful dara man bi ma ko defee léegi bon euh, dama yëg sawarte boo xamante ne mosuma ko mhm. yëg. Mhm. wax dëgg yàlla defuma dara. Mhm. tey effet nekk na loo xamante du ñàkk même xale sax boo ko vacciné. du dee yaramam dana tàng wala dana wëccu affaire yooyu noonu. donc pour nit ñi voilà ñu ñaax leen rek ñu dem vacciné wu xam ne actuellement. Sénégal maintenant, nous na mhm. tay la jeunesse. Mhm. sénégalaise parce que ñom ñoy ignorer vaccin ba tax tamit yenn tamit ignorer daw vaccin yi de troisième vague la wax mu critique au mhm. Sénégal. D'accord. Josephine comme temps bi euh, ne Josephine mi que à prendre la <laughs> Josephine de voilà, donc euh, malheureusement, je ne suis pas un cœur à prendre. Hmm? Non, du tout. Vraiment pas. Alors là, vraiment pas. Je ne suis vraiment pas un cœur à prendre. Voilà. dis-moi non mais c'est insister non non. Hmm. Voilà, ça veut tout dire. Quand daal ñi yoroon seen ay CV mun nañ defaat faire ah. parce que gars gens dégg naa gars yi gars yi nekkoon si CV bari na dañu waroon déposer seen CV. ah mais yàlla baax na. yàlla waxul kenn dara le nga ñëw non non mais je me dirais que lu jot rek mais man alors euh, quels sont les projets de Josephine dans l'immédiat euh, mes projets ils sont multiples mais bon on va plus parler du cinéma j'espère euh, tourner dans l'international en tout cas j'espère que les productions internationales <laughs> me remarqueront les on continue avec prod Prod, ça continue ne ratez pas la saison 3 et on va faire du boom quoi comme d'habitude D'accord. Vos derniers mots, Safansi euh, Je vous adore. Merci beaucoup pour tous les encouragements. Mangis message pour moi. Euh, merci à ma famille d'être si compréhensive surtout parce que c'est important. Merci à ma famille, ma mère, c'est ma maman de love du papa machallah mes frères je les adore franchement toute la famille cousins, cousines, big up à Ngoné <laughs> gros bisous à tout le monde voilà d'accord mi non. alors merci beaucoup moi aussi ça a été un plaisir wax dëgg Yalla ñu daal di koy dalal la belle euh, Josephine. wax dëgg Yalla bu ma taay di ko wax nag elle est belle machallah, elle est souriante aussi. aussi mbégte won ñu daal di koy dalal fi nga xamantene mom moy mooy locaux yu Wanema TV gis ngeen li nga xamantene ni nii euh, wax nako fi muy nak ko am fulla ko xamantene wax deug Yalla nak hein ah, du bàyyi kenn di